l'entendre est manifestement inégal il faut désobéir loolu la yoon wax. ah. Hmm. Mamour rek lim la mën a jox ci ay millions kenn mënula ko wax. te xoolal le mekk le mec il m'a forcé mu am benn conversation moom comme si moom daf may jàppale rek nee comme si daf may jàppale est-ce que xam nga loolu. moom moom ci boppam. te moom moo tëgg lépp ah. waaw. moom moo tëgg lépp moom moo tëgg lépp moom moo ma wër si ba gis ma man xaw ma woon kan la mais dafa Sidi moo ko waxoon ne am naa benn cible boo xamante ne loo gars dafay dem di koy seek moom rek Mamour Diallo ma aussi dugg dem maître Sow yor naa benn lii nii li yoo xamante ne maître Sow moo ko bind si loxo numéro jox ma ko dinaa la ko jox maître ya yaa maître Sow ñoom ñëpp ñu wax si après ñu ñoom ñu mën ndax mën nañ am sperme même ma ne leen sperme comme ça veut dire quoi yéen est-ce que ay nit ngeen et tout ça ñoom ñoom ma wax ne dama retourné waat li nga xamante ne duñ ko def seeni doom déjà loolu noonu c'est benn affaire bu grave ñoom ma den dama am sperme gis nga nag loolu gis nga loolu noonu rek loolu noonu rek. luñ luñ ci mën a liggéey am naa loolu liñ ci mën a liggéey. après ma demaat ce jour ce même jour j'ai j'ai appelé mais une semaine après maître xaw ma appelé pour me dire que le gars il est là ma ne waa ji ñëw na fi de parce que damaa duggoon cabine ak keneen ma ne ko ñëw na mais def dara dafa ñibbiwaat ma ca woo. Oh. voilà dama. après mu dem mais moo ñu jox ko ñu dem. Euh,

par ngi sa ginnaaw au fait li ma confiance bi nga am sama papa ci nga am ci man cest à li nga mën a wax ak man. li nga mën a wax ak man mënoo koo wax ak kenn te dama lay wax. confiance la boo xam ne sama diggante ak yow boo xam ne lu ñuy téye la rek denc voilà parce que nit il faut mu am ku nekk ci wetam dimbale ko comprendre nga bu baax. Hmm. jamais dama lay dimbale jamais maa ngi ak ba nga dee yow waxuma la dara dama lay téye. ba ni ñuy dee. wa bien pourquoi pas pourquoi pas yow man maa lay jox Cheikh Ibrahima Niass déggoo lu ma la yow loolu bul sonn. Oh, loolu boo ko tëddee bi loo si tegaatoon nii ba nelaw jeex na. Mawlana Cheikh Ibrahima loo si tegaatoon ba dem nelaw. loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la. ñun ñëpp aw ma problème man bu fekkee ne man man d' accord naa bu fekkee ne dañoo wax ne benn dinaa leen fa bu ñu waxee ne mën nañu defal compte je sais mën nañ ko def sa compte. bien sûr bien sûr dañ koy jël dama koy jël. day après dañ koy jël léegi daal li ma lay wax daal mooy. loolu yëpp hmm? fii day sedd day sedd na loo xam ne su fekkee ne doo dof da xam lu xew lépp dégg waaw mu ngi noonu te lii xew lépp xam nañ ko waaw léegi nag mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi munuñ laa téye ñoom munuñ laa téye di la utiliser ci loo xam ni ay waxu neen la rek comprendre nga mm-hmm. ba pare nag ñëw bëgg bëgg nag yow duñ la jox sa àq sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la garde corps jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaamu nga xam ne belle vie lañ lay dundaloo waaye belle vie am na lu ko lu ko gën. Mhm. xam nga lu ma la nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa xaalisu bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp. Mhm. te mën nañ ko du dëgg. Mhm. Ah, léegi nu ñuy def ba dem ci paa boobu ça m'intéresse quand de partir pour savoir plus ah, au cas où ma war a jël décision. d'accord léegi man danaa xool oote su ma ootee. Mhm. Euh, xool ko ban jour la ñuy mën a recevoir ñu def ci gannaaw Saalum la dégg nga. ok. incha parce qu'il faut que ma dem quand même. waaw. nga oh, xam ne xaw ma li tuuti ci décision yi ma war a jël parce que il faut que ma jàmbaarloog ñoom franchement. Ah, parce que. parce que ils n'ont pas intérêt que ma wax ils n'ont pas intérêt ma wu leen seen góor dafay daal. bu baax. ils n'ont donc comme c'est ça on va jouer maintenant carte sur table. mais moo tax ma bëgg yow nga ñëw nga toog xam naa ne ñuy wax nii yëpp ay fen la yaa ngi dégg. mais ñoom mhm. bëgguñ nga wax moo tax ñu garde la te suñ xamee ne da ngaa nar wax yaa ngi dégg mhm. liñ lay def mhm. dañ lay bëgg a liquider dañ lay bëgg a que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow bis boo waxee tas àddina yaa ngi dégg te damay toog waaw man parce que sa papa dafa ne benn kilifa lañ am gis nga ba muy def conférence dafa ne benn kilifa lañ am mu ñu koy déglu man nii lay wax. Seex sama papa na ma téléphone ne ma bul def loo xamante ne si mbir bu ko loolu dama. waaw donc léegi nag ñoom Maître El Hadj Diouf ak ñooñu du leen aara parce que Maître El Hadj mu ngi ciy baax. waaw oui ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp ku si takk képp ku si takk sa affaire mu ngi baax 500 moom. xam na ne moom Maître El xam na ne li mu nekk yëpp ay fen la mu ne xaaral léegi may may jéem a encaissé di lekk léegi ñu ngi ñu ngi koy jox xaalis. moo tax mu ne léegi nag nday mbill gi nga xam ne nag coow li yëpp moom la topp lu tax moom duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko jox allo ma xam nga xam nga yàlla moom tey su doon wàccee mbugalam fekkee tey tey tey tey la ñuy dem àllaaxira man damay bokk de lu tax ah ndax man nekk na complice ak yow toog xam te noppi xam nga boobaa moom ndax fu nekk nii moom mbugalu yàlla moom kenn xamut du jeex. mais mais mais non c'est-à-dire euh, aji suñu waxee loolu complice mooy lu nit dajaloo te booloo mhm. texe ko mhm. loolu complice la loolu mooy déggoo loolu la ñuy wax. loolu araam na wala araamul man mii doomu sëriñ te jàng kañ xam naa ci dara yow da ngaa yaakaar àddina fii la yem ñun ñii ñëpp yowmal am kenn xamut suñu yàlla jéggalu dëgg mbugal guddul jeex la xala imaginer rek bët bu set nga jël sa loxo teg ko ci gaz ci gaz mu lay lakk te gaz boobu doo ci mus a teggi sa loxo da nga ko ci teg te safara si yi nga gis ci àddina bi xam nga ñaata lañ ko sëppee ci safara su ci àllaaxira Mhm. sëpp nañ ko ci juróom-ñaar téeméer yoon juróom-ñaar téeméer mooy mhm. mooy sëpp déedéet mhm. bul tiit arko baax na nag léegi-léegi nga jàng ñu jàngal la ci mbir yàlla parce que xam nga nit doomu aadama day nekk ci àddina te du jàng du jàng yàlla su jàngee yàlla nag ñu koy wax ci yàlla dana am lu bëri loo xam ne dina ci bàyyi xelam mais nag yàlla borom yërmande la gari manta eh. ah? loolu mooy problème yow mi nday mbili gi nga xam ne yow yaa yow yaa waral coow lu yëpp ñu xam ne coow lu yëpp yow la te lépp c'est faux lu tax yow duñ la jox ay milliards Ah, dañ la ko war a jox aji. déjà tey dinaa leen tiital parce que je je retourne vers euh, François Hélène Gueye pour mhm. lui dire que de euh, samedi suba incha allah dañu def live. waaw léegi nag man révélation yaa waaw man dinaa lay xelal ni ngay def pour toog dangay toog ne leen damaa bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé à main yaa ngi dégg. Mhm. soxlawu sa clé à main nañ la defaral terrain. ñu jox la xaalis bi ndax mun nañ la jox terrain bindal la ay këyit ak yëpp fekk ne ñoom en domaine duñ ko duñ ko sottil ci yow comprendre nga lu ma la wax dafay nekk mu nekk foofu xam na xam na xam na xam xam naa leen ay sankat la ñoom ñëpp te ñoom ñëpp laa xam ñoom mhm. ñëpp ku nekk tëgg naa ak ñu ak yow mhm. ñoom ñëpp laa xam et pas intérêt ma wax loolu moom xam naa xam naa ko non non. ils pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoolal attends na photo benn benn liste ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. mu ngi noonu. su ma su ma su ma su ma la ko waxee sa je vois pas mon croire. ñii di ay daal moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite lañ nekkal boo xamante ne xamul dara def la et tout ça te xamuñu lépp lu ñuy def xam naa ko dama leen bàyyi ci biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la. léegi nag par force nag mu neex mu naqare dafa jot ci taabal nga ne leen yaa ngi may dégg terrain bi soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille attends attends moi je moi euh, ces ces ces ces gens là xaw ma ay nitu lan lañu quand un ordre est manifestement illégal il faut désobéir loolu la yoon wax